dal leen ak jàmm Sud Quotidien dafa def taxaw seetlu ci élection présidentielle yi ñu jàpp ci atum 2024 nee nañ kat loolu nag am na lu bëri loo xam ne leeragu ci ba léegi loolu sax moo gën a fës ci yéen kaay bi nga xam ne kat kii di Macky Sall mu ngi def forcé ngir am troisième mandat bi nga xam ne kat moom dëggal na ko waaye su fekkee sax am na ñu bëri ñoo xam ne nanguwuñ ko mbirum Karim Wade ak Khalifa Sall ñoom bëri leeral guñ ko Ousmane Sonko

Déthié Faye nekk coordonnateur pôle des non-alignés nee na kat loolu Sénat wax moom xel mën na koo nangu mu ngi koy rafetlu bu baax a baax Pape Madoun Sow bu grand parti moom samp ab laaj lan mooy njëriñu recommandation yi nga xam ne Sénat daal dina koy def Mamadou Sy Albert di analyste politique moom di am ci xalaatam jàpp kat loolu di baax na lool ndaxte kat dafay gën a jëmmalwaay tamit gën a jox solo élection présidentielle bi nga xam ne li na kat moom xel mën na koo laata atum 2024 ak recommandation Sénat ku jéggi ak tamit nguur gëm ñu ngi ci terrain bi di waajal seen bopp nag bu baax a baax yéen l'observateur di fësal ne yéen askan wi ñoom bëgg nañu amal nag ab concert casserole maanaam ay tëgg bool fanweeri fan ak benn ci weeru décembre bi ñu nekk waxtu bi nga xam ne kat njiitu réew mi dafa yëkkati ay kàddu jëmale ko ci askanu Sénégal suñu naataango yi nag samp ndax li mel kat xel mën na koo nangu jokkal ñoo xam ne kat seen xam dafa màccul jëm nag ci wàllu njàngatum politique kii di moom Albert joxe ci xalaatam nee kat li ni mel gisu ci benn jafe-jafe li leer ba leer opposition dafa sataxlu ci li nga xam ne kat mooy tolluwaayu réew mi ngir rek def li ni mel ndaxte kat waxtu woowu moom ñëpp a déglu Macky Sall def concert casserole day am solo trop fi mu toll nii li leer ba leer moom mooy ku ci nekk rek yaa ngi def sa kéem tolluwaay kàttan ngir de xëccoo bi gën a tar kat yi ni mel tam la kii di professeur Moussa Diaw daal di rotal ñu waxtu woowu dafa am solo trop ci réewum Sénégal ndaxte kat ñëpp ay déglu kii di Macky Sall def ci concert casserole opposition moom dafa bëgg a marqué kuwam bëgg ci nag wane boppam ndaxte kat discours yi bu faral di amee day am bilan waaye tamit ay annonce yoo xam ne kat dafa am solo trop jëm ci wàllu politique moo tax lii ñi nga xam ne askan def na kat moom xel mën na koo nangu jëm nag ci wàllu politique yéeni kaay tamit del si wàll nañ tukki ne meeko bi nga xam ne président Macky Sall mu ngi koy amal ci Tambacounda Sud Quotidien di fësal ne bëgg-bëggam leen rek la fi mu ni fexe nag bu suqali bu baax a baax diwaan boobu di Tambacounda jëm nag ci wàllu koom tamit ci wàllu émergence loolu nag li ko waral moom mooy plan de stratégie bi nga xam ne kat li nga xam ne Tambacounda am na ko ci wàllu ressource l'observateur di fësal ne Tambacounda Macky Sall jox na leen toll ci rek cinq cent milliards ci suñuy xaalis ngir rek gox boobu mën a dox bu baax a baax loolu nag i kaab di loo xam ne kat dafay gën a fës ci wàllu kaaraange gi ci waxtu woo xam ne kat fi mu toll nii kaaraange dafa am solo trop ci biir réew mi moom sax tamit ci la inauguré yoon wi di Goudiry Tambacounda ak tamit Goudiry ak Kidira loolu observateur moo ko ci yokk xalif général kull murid Serigne Mountakha Bassirou Mbacké moom jox diggal police ak gendarmerie fi mu toll ñu yor kaaraange ca Touba dindi ko nag ci loxo Safinatul Amaan loolu moo gën a fës ci yenn kaat bi l'observateur Vox Populi di fësal ne fi Ousmane le ci liggéey Safinatul Amal di la turbine ci wàllu ak Boy Niang te ñu ko benn fan ci janvier ci arène nationale record di fësal ne démb nag sat amul bari moom bari na nit lool li ko waral rek moom moo jëmoon ci open press kii di Balla Gaye 2 nit ñu bëree bëri la ñoo fa teewoon kii di Balla Gaye 2 nag yëkkati ay kàddu jëmale ko ci ki nga moo di booy Niang nee na kat combat bi dina métti tamit dina yàgg lool dina am xeex waaye tamit dina ko jàpp duma ko daal di koy daan moom Balla Gaye de sax bëgg-bëggam leen rek la fexe nag ba kii di Macky Sall fekkee lu jëm ci wàllu combat boobu ci yéen kàddu l'observateur muy fësal ne guléet nag ba ñu amalee xaatimi contrat ba léegi Balla Gaye di yëkkati ay kàddu tontu kii di Boy Niang nee kat moom dina ko jàpp dina ko duma dina ko daan ci Sud Quotidien Balla Gaye di fësal ne moom bu ñu sifflee rek dina xeex ak kii di Boy Niang laataa mu koy jàpp daal di koy daan combat boobu na ñu ngi ko amal benn fan ci weeru janvier atum 2023 ci arène nationale ki ko ci wàllu football yéen i di def bilan wu dix journée championnat bi ci Ligue 1 bi def taxaw selu ci équipe bi Jaraaf de Dakar bi nga xam kat fi toll bi ci ay jafe-jafe yu tar équipe bu Médina bi nag moom saison bi mu door moom baaxul dara fi mu toll nii sax moom am na ñetti victoire ñeenti defet ay tamit ñaari match nul dugal nag juróomi bi encaissé si buts effectif bi nga xam ne am na ko nag amagul njëriñ boo xam ne gis nañ ko ci championnat bi ndaxte ka Youssouf Daouda am jafe-jafe ngir rek aligné même onze ci ni jaraaf jël onzième ci classement bi am fukki poñ ak benn yéeni kaay bi de soleil moom def nga xam ne jeex na altine ñetti équipe yi ne ñoo jiitu kat ñoom dañoo gagné muy Casa waaye kat yéeni kaay bi ne ne CNEPS moom ba léegi mu ngi ci ay jafe-jafe ndaxte kat moo mujjee ci wàllu classement bi mbokk yi jëf ba yoon incha allahu rabbi bonjour à tous Sud Quotidien s'arrête sur la présidentielle de 2024 Une élection, mille inconnus, c'est le titre qui barre la ligne du journal. Mon confrère s'interroge, qui seront les candidats à la prochaine élection présidentielle Mystère et entre forcing annoncé et ou presque validé du président sortant en quête d'une troisième candidature qu'il a juridiquement validée lui-même, mais qu'il peine à faire passer moralement, Khalifa Sall et Karim Wad, dont un recouvrement d'éligibilité semble dépendre des désiderata d chef de

Déthié Faye, coordonnateur du pôle des non-alignés, du dialogue politique, évoque le caractère légitime de cette démarche. Pape Medoune Sow du Grand Parti s'interroge sur l'opportunité d'une telle recommandation. Selon l'analyste politique Mamadou Sy Albert, ces recommandations sont bonnes et donnent de clairvoyance dans l'organisation de la présidentielle de 2024. L'expert électoral Ndiaga Sylla est en phase avec l'organe en charge du contrôle la supervision des élections. en attendant la présidentielle et l'application des recommandations de la Sénat, l'opposition et le pouvoir occupent le terrain. Selon l'Observateur, Yewwi Askan Wi organise un concert de casseroles le 31 décembre prochain à l'heure de la traditionnelle adresse à la nation du chef de l'État, une manière pour les responsables de en choisissant un moment aussi solennel, s'interrogent nos confrères qui donnent la parole aux spécialistes de la communication politique. Mamadou Albert n'y voit pas une dérive. Selon lui, l'opposition reste dans sa posture. À partir du moment où le pouvoir se radicalise, l'opposition aussi se radicalise. Chacun utilise la forme avec laquelle il pense mobiliser l'opinion. Tout comme Mamadou Albert, professeur Moussa Diaw, docteur en sciences politiques, moment du discours du président pour organiser sa contestation contre la malgouvernance de la majorité. C'est une stratégie politique pour gêner ce moment solennel pendant lequel le président Macky Sall se livre à ses rituels républicains pour faire un bilan ou des annonces de portée politique majeure. Les journaux sont aussi revenus sur la visite du président Macky Sall à Tambacounda. Sud Quotidien révèle que la trajectoire du développement de la région orientale du Sénégal va connaître une nouvelle impulsion, une annonce du chef de l'État. Selon Macky la région Est va devenir un pôle économique mise en œuvre du plan stratégique arrimé de la région. Selon région de Tambacounda tient son pactole pour les trois prochaines années. Le chef de l'État, Macky Sall, a annoncé hier une enveloppe de 500 milliards de francs CFA pour le financement du projet spécial d'investissement prioritaire. Selon le quotidien national Le Soleil, dans le cadre de la tournée dans la région de Tambacounda, Macky a inauguré le camp militaire de Goudiri, une infrastructure moderne en phase avec la dynamique de renforcement du système a l'observateur. Le Khalif général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, a pris une importante décision hier en confiant la sécurité de la ville de Touba à la police et à la gendarmerie, rôle jusqu'ici dévolu à une police religieuse, écrivent nos confrères du quotidien L'Observateur. Sécurité à Touba, le Khalif arme la police et la gendarmerie, c'est le titre qui barre la ligne du quotidien Vox Populi. Touba, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké dissout la police multiples dérives et récriminations dont elle fait l'objet, le calife a pris la décision de dissoudre la police religieuse de Touba, appelée Safinatul Aman. Serigne Mountakha dissout toutes les polices religieuses, écrivent nos confrères du quotidien La Tribune. En sport, lutte, combat du 1er janvier, Balla contre Boy Niang. Selon Record, le stade Amadou Barry était noir de monde hier à l'occasion de l'Open Press de Balla Gaye 2. Cette grande mobilisation de ses supporters devrait battre tous les records pour le Lion de Guédiawaye. Devant son staff, les lutteurs de Guédiawaye, la grande foule, le lutteur a offert un spectacle et dans son adresse à la presse, Balla Gaye 2 a invité le chef de l'État à venir assister au combat sans omettre de mettre en garde le de De Gaulle. Selon l'observateur, pour la première fois depuis la signature du contrat, Balla Gaye 2 le ton. Apportant la réplique à Boy Niang, le fils de Double Less promet de corriger son adversaire avant de le terrasser. Selon nos confrères de Sud Quotidien, Balla Gaye 2 promet au fils de De Gaulle une rude bagarre au coup d'envoi. Dans le quotidien sous nos lambes, il déclare « Je suis le meilleur ». Le combat, prévu le 1er janvier prochain à l'Arène nationale, est organisé par le promoteur Gaston Beng. Football, le quotidien record s'arrête sur le bilan du Giraffe de Dakar après 10 journées. Mon confrère explique le rêve du titre pour le Casasport est très loin de celui du Giraffe de Dakar. L'équipe de la Médina ne vit pas un début de saison tranquille. Après 10 journées, L'équipe de Chersek a disputé 9 matchs pour seulement 3 victoires, 4 défaites et 2 matchs nuls, 5 buts marqués et 6 encaissés. Avec un effectif très fourni, le nouveau coach Youssouf Dabo peine à enchaîner 3 matchs avec le même 11 de départ. Avec les blessures et les méformes, l'équipe type est souvent remaniée. Conséquence, l'équipe de la Médina occupe la 11e place avec 11 points. Nos confrères du quotidien national Le Soleil font le débrief de e journée. confirme ses difficultés et reste bon dernier. Merci, c'était tout. À vos journaux et bonne lecture à tous.